dafa am lu haruna rachid tudde woon ruuxu taqdir mu dellu ca la cheikh alxaj malik wax ni bu nu wattuwul ñun jullit yi daañu dem ba la daloon yahud yi dal ñu te moo di dema dema dema dem ba amatuloo ruuxu taqdir ngaram placé ko ak atifatul kibriya e bokku ñu xamuloon ruhu taqdir ak atifatul kibriya du ben te nak bu la sa bop jayee nga jaawale len mo waralon yahud yi wax ni naxnu abnaaullahi wa ahibbaahu len yonent bi wowe ca kongarem ba ñoom dañu ni ñooy doomu yàlla ñooy ay soppeem ñoo di shiab al almuxtaar loolu ci atifatul kibriya la tegu mais teguwul ci ruuxu taqdir ruuxu taqdir ruux la buy nekk ci doomu adama lu ne def ko koy nattuloo ba mu xam fa mu ca war a yem Euh, am na benn chef d'état africain bu ma doon waxtaanal ni ko lu la gën a metti ci say collaborateur mu ni ma mën naa pardonner collaborateur lu ne gannaaw mu am mu ñàkk ruuxu taqdir wax na dëgg lu tax ruuxu taqdir boroom événement bu ñëw ak problème bu posé benn la mu sous ko wala mu surestimé ko wala mu jox ko cachet personnel bu ko defee dafa perdre donné problème bi yëpp ruuxu taqdir moo lay may événement bu ñëw nga bañ ko sous-estimer bañ ko surestimer bañ a jox événement bi sa jikkoy bopp xanaa jéem ko placer moom ci euh, proportion yi war a nekk yosam képp ku collaboré kilifa te amuloo roosu taqdir bés bu ne di ko fexe mu commettre bêtise bu nga xam ne bu ci génne yàlla ku ci génne waaw moo tax yahud yi نحن أبناء الله وأحباؤه يل منول نديكو وقت دولين تنسو قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر بل أنتم بشر ها نيوم نانيو نيوي سما دوم دي سما يسوبي لوتاخ ما ما تغلين مصيبه بما لين تك سما دوم اك سما سوبي مان يالا ما ماني سام بوب سما امي دوم ام سوبي دوما كو تك فتنه أنا روح التقدير دفلا ماي لو بغ تك بلاص ام رك لو ام سولو لا تي كو اند كليف لو ام سولو لا تي كو بغ كليف واي يتم لو تول ني من ني كليف جي كو نياي لا ولا تك لو داي نا نياي كو امول سولو فل كي لو التقدير كو مصيبه لا كي دي مصيبه لا da nak am nañu tabarkalla ci kër sëriñ si nga ko xamee bu ñu fexee ñëw rek booy ko xam ne léegi àdduna tukki waaw maa ñàkk xam mbir mu nekk rek nañu ko nañu ko tege waaw